jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte mbokk yi comme niñ leen koy defalee saa su ne eh, ñuy nuyu képp koo xamante ne da ngay seetaan wasaare làmb moo xam nga ne ci réew mi ak bitim réew fépp fu nekk di béggee wasaare rek ñu ngi lay nuyu eh, di am kontaante bu baax a baax a baax janowaat yéen comme niñ leen koy defalee saa su ne démb gis ngeen li nga xamante ne jukkil nañ leen ko waxtaan ko mu jëm ci làmb tey nag bëgg nañu waxtaanaat ci beneen bilan boo xamante ni mooy écurie Fass écurie Fass euh, sunu làmb bërki démb dafa dafa am lu mu tiitre bind bilan wu écurie Fass écurie bi nga xamante ni fa la Moustapha Guèye nekkoon suñu papa fala suñu maam Mbaye Guèye nekkoon écurie Fass bi nga xamante ni boo waxoon écurie rek mbër moo ko jox du tala lekk du tala naan ngir turu écurie ba ngir mbër mi nga xamante ni mooy écurie Fass tey nag écurie Fass boobu lañ bëgg a waxtaanee écurie Fass boobu ñu xool ci bilan bi ñu def neuf combats la ñu am ci cinq mois yi écurie Fass am nañ ci cinq euh, quatre victoires lañ ci am ñoom waa écurie Fass am ci cinq défaites écurie Fass bu Lac nekk écurie Fass bu Serigne Ndiaye 2 nekk écurie Fass bi nga xamante ni fa la Gris 2 nekk fa la Forza nekk fa la yeneen ndaanaan yi nga xamante ne yaakaar nañ leen ci làmb. ci mel ni euh, Pape Ndoye rakk Lac bi ak yeneen xale yi nga xamante ne yaakaaroon nañ leen ci làmb écurie Fass boobu tey dañu leen gis ñu sooxe sooxe bi lan la ndax écurie dafa baaxoon ñu am benn entente seen biir ñoom ñëpp ñu booloo doon benn say ndax wolof def ne mbooloo mooy doole doole boobu lañ gisatul ci écurie Fass doole boobu nag lañ xamul lan moo ko di ci dirigeant yi la ci mbër yi la ñan ñoo teggi seen tànk parce que écrit dafa am lu muy doxee bu ngeen toggee lu yàgg amoo leen performance bu baax war ngeen a xam lan moo leen ko xañ ak lan moo leen ko may ba ndaanaan yépp nga xamante ni ñu ngi woon écurie Fass lan moo waral defet gi lan moo waral mënatuñoo gis écurie Fass bi ñu doon gis bu ñu amoon combat mbooloo la ñuy doon doon benn say ñu jékki-jékki dégg ay coow yoo xamante ni xëy na mënul ñàkk ci écurie mais dañ ko fasal mu jëm ci presse bi li ci njëkk mooy coow ki nga xamante ni mooy Papa Sow mu waral ko ñu dàq ko écurie mu jóge fa ber écurie boppam tuddee ko jàmbaar Wrestling Academy tey loolu yëpp mbokk yi moo waral tey ñu bëgg a waxtaanee ci bilan écurie Fass écurie Fass seen doxalin lan la ñoom lan mooy seen problème surtout mbër yi nga xamante ni amoon nañ ci ñoom yaakaar parce que boo xoolee da koy commencé comme lagros lagros bi muy départ ñëpp dañoo xamoon ni ndaanaan la ci làmb Lac bu dugg see nga xam ne am na ay mbër am na fayday bëre am na jomu xeex loolu dañ ko doon gis ci moom ñu jékki-jékki dégg ni am na benn blessure boo xamante ne metti na loolu mu dal ko ci zone ba mu dem France faju ji ñëwaat bi mu dellu siwee tey ci combat am bi nga xamante ni moom la amoon ak Moussa Ndoye bu yaraax keroog gisatuñu jëmmi Lac cent pour cent ba tey tey tey ñuy dem ba gis nga li nga xamante ni euh, loolu la ñuy wax ci carrière Lac mu doon koo xamante ni war naa mën a fajuwaat dellusiwaat ci làmb ndax làmb am nañ ci moom yaakaar xale la boo xamante ni mën na bëre am na jom am na fulla ak fayda ci làmbam te yooyu yëpp war nañ ko mën a gisaat ku ci mel ni Forza Forza depuis mu bëreeg Abdou juuf ba léegi kenn gisaatu ko lan mooy problème ci mbër moo xamante ni Fass amoon nañ ci moom yaakaar Forza bi mu bëreeg Ablaye Wade daan ko ñëpp dañoo waxoon jeex na li Moustapha Guèye ñàkkoon ci làmb li suñu papa Mbaye ñàkkoon ci làmb li Gris Bordeaux jotuloon ci làmb Forza mën na koo indil Fass ñu jékki-jékki gisaatuñu Forza. mu amaat moom it mu amaat benn blessure boo xamante ne blessure bu metti la mu di ko traité ba dellusiwaat ci làmb ji mais problème mu adversaire la am moom Forza ñu ñëwaat ci ki nga xamante ni mooy Gris 2 Gris tamit noonu la demee Gris boo ko gisaan mu ñëw dugg xel day dem ci suñu papa Manga 2 forme boobu la mais mën na bëre boo xoolee diggante moom Auguste Manick seen fële ci stade Jom Iba Mar da ngay xam ni Gris 2 mi champion la keroog daan na ko ak manière wane dooleem mais dafa bëri benn combat ak Reug Reug daan ko ñu jékki-jékki gis ne Gris 2 ma ñu gisoon wala Gris 2 mi ñu xamoon bokkut ak Gris mi ñuy gis tey am xale boo xamante ni bëri na ci ci saison bi muy Serigne Ndiaye numéro 2 mu bëre ak ki nga xamante ni mooy libidoor Serigne Ndiaye dóor ko mu daanu fële ci stade Jom Iba Mar Diop. ñu ci bari yaakaar ni xale la boo xamante ne Fass am nañ ci moom yaakaar waaye làmb am na ci moom yaakaar moom Serigne Ndiaye numéro 2 ndax daaw ñu gis d'habitude mbëru Fass yi nga xamante ne dañuy wàcc ci làmb simple bi di fi ñàkkante di ci wane seen bopp mais Serigne Ndiaye numéro 2 gis nañ ko ci Pape Ndoye doon na ko def mais jékki-jékki nañ moom it gisaatuñ ko muy wàcc ci bëre simple yi mais Serigne Ndiaye boo tëggee adresse ngoon mu dem. boo tëggee gaal gi mu dem boo tëggee joof yor mu dem fu nekk mu ngi fay bëre di compétir keroog bi mu ñëwee dix dix millions yi jag sa tegoon fële ci arène nationale euh, Franc moo ko éliminé woon mais teewul mu ngi ñëwaat ci compétition yi di ci bay waaram moo lay wax ni làmb noonu la sport la parce que mbër boo nee mbër nga rek pour man da ngaa di compétir à chaque moment chaque chaque jour saa yoo xëyee entraîné boo wàccee. nekk ci li nga war a nekk foo dégg ni compétition am na fa nga dem tooyal sa xaftaan bëre ndax damay wax ni ndam moom yàlla suñu borom moo ko yor mais yow mii bëre fexeel ba na nga am fu lay gu toll ni compétition fu mu am rek nga dem bokk ci lim bi bu ëllëgee bu ñu lay lim dinañ la ci boole. Euh, sëriñ Ndiaye 2 am na ndam ci kaw Libidor waaye keroog boo gisee làmb ji ni ñu dugg see ci làmb ji ñoom waa Fass nga xam ni keroog maa ngi koy wax naa leen Fass ndam bëgg. buñ ko bëggee jël si dañ koy jëlsi si buñ bëggee am ndam loolu dañ koy am ngir lan mbooloo bi ñuy boole keroog bi ñuy indi Serigne Ndiaye de gis nga Gris ci wetam gis nga Forza ci wetam gis nga Moustapha Gueye 2 ci wetam gis nga ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne Gris Gris 2 euh, euh, nu tuddati général ak yeneen daanaan yoo xamante ne gunge nañ Serigne Ndiaye 2 keroog bi muy bërëg di bi ñu dox taxawaat seetlu tuuti ci diggante Tafa Gueye 2 ak Abou Niassé Tafa Gueye Tafa Gueye 2 bi mu bëreeg Abou Niassé bi mu ñëwee ci làmb ja keroog ñëpp xamoon nañ ni boo doon jox favori fi mu tal nii danga koy jox euh, Abou Niassé ndax Moustapha Gueye 2 malgré moo jiitu Abou Niassé ci bëre moo ko jiitu ci làmb moo ko ëpp expérience mais keroog Abou Niassé ñu bari dañoo jàppoon ni xale la boo xamante ni mën naa jóg jëm ci kaw mu doonoon loo xamante ni Abou bi mu ñëwee keroog stade Diop Iba Mar Diop wane na boppam waaye gis nga daanu ko ci wëlminkan ñoo bëri ñoom ñaar avertissement yi bëri ci côté Moustapha Gueye ñu jox abu Niasse li nga xamante ni mooy ndam li làmb noonu la Moustapha Gueye de moom it gisatuñ ko ci làmb portam wala tànk bi muy teg jéego bi muy yëkkati li ci ëpp mooy génn làmb la gën a jege ko duggaat ci làmb am mu ngi laaj ay xale euh, ñoom ñëpp waa Fass yi fi mu toll nii changé nañ lu baree baree bari loo xamante ne war nañ koo mën a liggéey ci wàllu écurie Fass mbër yi war nañoo mën a boole waat suude waat parce que écurie buy dem da xool bu njëkk balaa ngay tudd benn écurie Fass ngay tudd mais écurie école de lutte Balla Gaye dem na ba buuxante ba bokk ci course bi Pikine ñaata écurie ñoo fa nekk dem nañ ba ñoom ñëpp buuxante nañ ba bokk ci écurie ba bokk ci ci làmb ji ba fu ñu tuddee ay écurie tudd leen fa commencé par euh, écurie bi nga xamante ne mooy euh, Pikine mbooloo commencé ko ci Fallaye Balde commencé ko ci écurie bi nga xamante ne mooy booy Niang ñoom ñëpp écurie fa écurie Pikine am na ay ndaanaan yoo xamante ne ñu ngi ci ay écurie ku ci nekk jugee ci branche bi dem ci branche bu mooy muy wan ni Fass rek fi mu toll nii koo waxoon ni Fass laay bëreel say mbokk duñ nelaw. say mbokk duñ tala lekk say mbokk duñ tala naan waaye léegi mbër yu ndaw yi sax dangay ngay jékki-jékki dégg ñoo jox ma mbëru écurie Fass bi boo xoolee Lac Rose boo xoolee euh, Jackson ak Pape Ndoye wane na ko keroog Fass bépp booloo indi ku mel ni Pape Ndoye Jackson bëreek moom bëre boobu mu bëreek moom daan ko ak manière dóor ko mu daanu mooy wan ni écurie yi fi mu toll nii ñu ngi toxu mais am na ay xale yoo xamante ne ñu ngi wane jom ñu ngi wane njàmbaar ñu ngi wane fulla ci liggéey bi nga xamante ne ci la ñu nekk te làmb amul naxante làmb fii ak yaa ngi sérieux doon mbër xam li lay may ndam taxaw ci rek lépp loo bëgg ci làmb mën nga ko am mooy ci côté fulla ci côté fayda ci côté nangoo entraînement sérieux di teel a tëdd ndax Yaxya Jóob Yékini maa ngi koy nuyu au passage sama papa boobu day wax naan mbër day teel a tëdd di teel a yeew di entraîné bu baax di lekk di récupérer loolu nag képp kuy mbër nga xamante ni une heure du matin deux heures du matin da lay fekk ci mbedd mi bu heure entraînement jotee nga tàggoo entraîné bokk ci lim bi boo demee li ñu war a gis ci yow duñ ko gis ci yow boo ñëwee làmb rek résultat bi day feeñ parce que xam naa ci mbër yoo xamante ni dañuy entraîné ba sonn bu demee ci làmb ja jéll bi yomb lool ñu daan jël bu gaaw du ñu entraîné bu ñu demee daan dañuy dem ba mujj gi dañuy yaakaar ne entraînement bi du ci dara te alors que entraînement mooy fondement wu mbër malgré baax na lool dem ñu ñaanal la say mbokk jox la ñëpp àndul ak yow waaye boo entraîné wul doo ko mën a am kon fas fi mu toll nii nañ dajaloo waat xool lan moo leen mën lan moo leen xañ li ñu amoon ci làmb lan moo leen koy bëgg a xañ ñu indiwaat ko booloo ko ci kanam tuuti dinaa woo ki nga xamante ni mooy doomu Aziz Diop bi Ousseyn Diop dinaa ko dalal fii ñu waxtaan ci jàngat làmb ji jàngat ko man ak moom waxtaan ci lu bari ñoo xamante ni làmb soxla woon na leen loolu yëpp dinañ leen ko yëral ci kanam tuuti tuuti tuuti incha allahu rabbi Adama kon maa leen di jaajëfal bu baax a baax a baax fépp fu waay mën a nekk ci àdduna